pense que problème rek lay jur. waaw ah, problème rek lay jur de toute façon euh, li ci des euh, bareetul ñu xam euh, ana ñan ak ñanay dem ci élection yi mm-hmm. bu ñu ko àddoo fële ca conseil constitutionnel maa ngi la ko doon wax fan yële ma ne la il suffit ñu afficher liste ñuy bokk rek ñu mën a ñu mën a jël ñaar ba ñett nit ñii. ñoom. Mm-hmm. mën nañ nekk président ñooy favori ñooy favori yi mën nañ nekk président loolu moom am na mais fële démb ci euh, direction générale des élections Moustapha euh, tàngoon na trop ci diggante takk der yi ak euh, maître Clédor Ly avocat d'Ousmane Sonko ak le mandataire du leader de PASTEF muy Ayib Daffé ñoom bëggoon nañu jël seen fiche de de parrainage et comme ni leen ko yoon waxee après la décision du juge Ousmane Yacine Ousmane Racine Ousmane c'est quoi moom problème avec Yacine Racine Thior donc euh, euh, gis nañ la fa xew brutaliser nañ leen bëmax nañ leen buux nañ mm. leen ne leen du ngeen fi dugg citoyen yëpp ña ngay dugg nag di jaabante di lijjanti seen i problème euh, mais ñoom daal comme ni ko maître Clédor waxee ak ni ñu ko gisee ci image yi nee na brutaliser nañ ko sonnoon na ay ponkal yi am doole ñoo ko <laughs> ñoo ko jàpp moom dafa ndaw donc mu ngi noonu noonu la ko waxee mais tamit jaay doole googu dénoncé na ko te nee na dina dénoncé Sénégal euh, ci euh, àdduna bi yëpp ba ñu xam ne li ñuy def ñu ngi jàpp benn avocat bu war a def liggéeyam ñu koy xañ euh, noo jàngate tey li xewoon démb fële ca DG ak maître Clédor ak Ayib Daffé. waaw dama koy ñaawlu bu baax li may njëkk ñaawlu mooy brutalité bi. Hmm. mais xam nga pour man chaque jour ma wax ko fii waxaat ko waxaat ko répété ko. ma ne en toute chose boo koy approché wala nga koy def. Mhm. dafay baax nga am ci lucidité. lucidité mooy ak tey ak daal. Mhm. c'est très important mais nguurug Sénégal lu jëm ci mbirug Ousmane Sonko buñ koy aborder duñ ko aborder ak lucidité maanaam ak tey ak daal du ci am xam nga buñ ko doon aborder ak lucidité nu ñuy def ñëw di jël fiche de collecte de parrainage jox leen ko fiche mu dem dem na caisse de dépôt et kii jox leen ko mu dem ba mu dem conseil gis nga bu yeggee conseil constitutionnel conseil constitutionnel ne ko ah Ousmane kat yow ndeke génne nañ la ci liste yi mhm. gis nga balaa moo dugal recours ak yooyu quarante huit heures euh, période contentieux bi kii bi suba yëpp du si mën a am mhm. juge des référés ngay dem na mu ko dàqew ñu dàq ko après mu jeex ñu ne ah Ousmane Sonko out na kooku moo dem ak lucidité maanaam day calculer Khalifa Sall pourtant déposé na candidature am te mhm. dama dama dama mu dem xam nga li ma la dama koy dama dama leen dama leen di bàyyi maanaam ñu dem ba ci ka war a décider mu décider. Mm-hmm. kooku moo am ak lucidité xam nga parfois tey ji nga jàmm sa sa adversaire wala mbiru làmb sa adversaire dina noo koy yàkkamtee rek ñàkk combat bi. Mm. dina noo koy parax paraxee ñàkk combat bi nooy teeyee nga gagné combat bi mais ñoom dañ koo ma c'est-à-dire manque de lucidité mu leen dugal ci lii yëpp ñu nekk nii. est-ce que sóoroon nañ ne mbir mi tey jii app bi balaa booba dinañ toog ba léegi imagine toi ba léegi nu sommes à moins de deux mois de l' élection ñu naan Ousmane Sonko dina bokk du bokk. ba léegi débat boobu même man man loolu rek nee naa Ousmane Sonko que est-ce que euh, loolu ko woon na moo tax fi mu ne ñu nekk ci ci ci ci yi. non non waajuñ ko. waajuñ ko waajuñ ko woon non non non pour ñoom pour ñoom éliminer nañ ko. parce que ça a été comme ça ak adversaire mhm. yóbbu moo tax ñu naan Ousmane Sonko lan moo tax mu dem ci euh, contumace bi ma ne eh, mbiri yàlla mi ngi ci biir. bu demoon ci contumace c'était calculé non bu demoon ci contumace bi. dañ koy accélérer ñetti cours yi condamné ko définitivement mu pousse. non mais waaw moo tax may la loolu. le fait que mu bañ a dem loolu bien calculé. parce que xam na ne contumace bu ñu la jàppee. mais dafa am mais nag dafa dafa am ku ne ci wetam. Mhm. avocat boo xam ne si nii. sirek leen dafa non non si si na xam nga ne xeexal na Khalifa Sall. xeexal na Karim léegi li ko daanal fële est-ce xam ne ñaari ñële. tribunal moo leen daan nañu écarté mu ne Sonko ñamal contumace bi ñu xool lu muy joxe. de toute façon bu ñu la attee par contumace bu ñu la attee par contumace. Mhm. yow fi ñu toll nii Ousmane Sonko na bàyyi toog këram ñoom jàppuñu ko mhm. ba tey wala suba jàpp leen ma maa ngi ñu continué da ngeen a àtte gisoon ma peine bi anéantiru peine bi anéantiru wax ji jeex su boobaa duñ fa nekk sax nankaan lii lañ la jàppe wala lii lañ jàppe prisonnier moo moo constitué prisonnier su boobaa loolu lépp coow loolu lépp day jeex mhm. mën ñëwaat ci lucidité lucidité bi ma la doon expliqué maanaam foogoon nañ ne heure bi dina fekk coowul Ousmane Sonko taxañ nañ ko ba mu jekk parce que lu ñu leen la lañ daan wax ban débat boo bëgg ñu ñu doon ko réussir lañ doon def seen bopp mhm. wut leen plan B boo xoolee loolu doon détaché si plateau bi lu ñu wax wut leen plan B te xam ne seen waajur du bokk seen waajur du dem wut leen plan B loolu lañ leen di conseillé wut leen plan B mais ba léegi nga gis ñi ngi dem ba jour bi bi ñuy publier résultat yi dinañ amaat doute boobu Ousmane Sonko dana jàll wala du jaal te ce qui est sûr et certain mooy dina yóbbu candidature am mm-hmm. même suñ ko joxul fiche de parrainage dina jël benn fiche boo xam ne du am numéro mu jël ay député ñu parrainé ko parce que am na possibilité ay député parrainé ko parce que euh, dina am ñaar ñoo xam bu ko rejoindre mu am ñaar ay ñaar ñoom dañu am parrainage des élus mhm. te loolu mën na ko lijjanti ci pur wala ñeneen ak ñoom ñoo parrainé ko euh, ci ci ci député yi mun mu def naa des élus dugal Bassirou Diomaye dugalaat keneen koo xamante ne bokkul sax sukulóoru Pastef mhm. xam nga li ma la wax su defee schéma boobu noonu mu dugal ko ba léegi day toog di seetaan conseil constitutionnel parce que man li ma yàgg wax laa gëm mooy élection présidentielle yi di ñëw Pastef dafa warloo ak askan wi ku leen représenté représentant bi mën naa jóge fu ne mhm. mën na doon Ousmane Sonko mën na doon keneen koo xam ne noo lañ yaakaar ci Ousmane Sonko. Mhm. mais suñ ko deful rek su boobaa dañuy raté histoire pour man noonu laa koy tuddee dem élection te ñu ne kenn ku bokkul ci Pastef comme ni ko ñuy bëggee mhm. ku bokkul ci Pastef wala ku Pastef yëgal bokkul ci élection yi là c'est raté l'histoire te loolu moom xalaatuma ko maintenant bu ñu revenir ci li xew fële ca DGE dal daf ci amul dal dafa am solo ci loo gis. Mhm. yow si le crédor ñëw na ngeen recevoir leen ne leen 12 heures jot na léegi dañuy dañuy bu si kanamee la ñuy reprendre jékki nee na ñu fekk fa bëgg koo génnee ci biir direction bi. Mhm. mooy leen damay dem ci beneen service. noonu la kii ak ñoom dem ci service ba waxtu yu jot après midi mu ñëwaat pour dellu si ne ay ayib na ko depuis quand direction générale des élections service yoo xam ne boo fa demandé toog boo gisu nit ki mën nga fa toog 10 heures ba 17 heures yow tey boo fa demoon di seet kenn mën nga am na droit dugg fa mën nga fa toog 10 heures ba 17 heures lan moo teye ñu bàyyi ayib dafa ak ñu dugg toog jàpp seen jàmbur mm. Mm. nga toog seetaan leen ayib nee ñu ne ko yow da ngay ñëw waaye huissier bi du la topp loolu mooy lan bu fekkee ne not ngeen koy jot mais huissier lan la mm-hmm. ngeen ko noonu da ngay ñëw waaye issue bi du la topp xam nga pour man euh, dañu nekk di dañu nekk ci benn benn période boo xamante ne Mahfouz c'est regrettable man loolu moom ma gën a metti loolu moom ma gën a metti ci li nga xamante moom lañ nekk dund jamono yi c'est pas la personne de Ousmane Sonko déedéet li ñu koy def ni tey yow bu ñu la ko defoon ma taxaw xeexal la ko mhm. parce c'est pas du tout normal munoo ànd ak décision de justice nga lire code mu ne décision de justice boobu noonu dañ ko war a exécuter immédiatement. Mhm. ngeen taxaw nankan demal daaf demal fële du jouer avec le temps nga toog ci wet gi dégg ñu ne la agence judiciaire de l' état léegi moom dafay toog ba neuvième jour mu dem déposé ji su ko defee après dépôt yi passé na moom mu forclos léegi candidature boo xamante ne tey ji ab askan wala ñu bëri ci askan wi dañoo yaakaar kooku yaakaar ne bu ñëwee dina indil coppite. nga ne nee na yéen du kooku du bokk parce que ñun dañ ko forclos dañ ko génne ci liste yi naam juge nee na génne bi ñu ko génne du yoon nañ ko dugal ngeen ne ko non non ñun du bokk parce que ñun arrangé ñu daal bokk du bokk léegi ñoom ñooy ñan ba du bokk warul bokk du bokk te dëkk bi am yoon nag ba yoon dafay décider ñoo xamante ne administration lañ taxaw na yoon jëfe ñu li ngay décider di dàq ay nit di brutaliser ay avocat ay huissier nga ne ko doo dugg def li nga war a def léegi ñoom seen lay bi nekkoon force de cela à la loi léegi loolu nan lañ koy layelee uh-huh. loi moo war a am force di loolu la bi wax. loi moo am force bi léegi loi ban tribunal moo gën moo gën a tribunal moo lan moo gën a méngale jëmmale loi fa la ñu toggee loi fa la ñu fa la fa la ñuy appliquer loi fa lañ koy waxee fa lañ koy jëfee. Mm. waaw tribunal boobu tukkal dara indi ko jox ngeen ko duñ ko def te ñu ko def ñëpp actuellement fi ñu toll nii teguñu ko fenn fu leer foo xamante ne moom lañ mën a moom lañu mën a sukkandiku moo tax boo gisee tamit ñële euh, waa DGE. waa Ayib Daffé ak ñi mu àndal. Mm. boo comprendre bi pas dafa renfort. maanaam mbir mi ñu ngi koy ñu communication bi ñu koy gën a amplifier mhm. parce que ayib bii paa man gis naa ñeneen ci ginnaawam ah, ñoo ngi ci ginnaawam ak ñeneen ak ñoo xam ne Pastef la ñu bokkoon dem wéttali ji ko mhm. bu loolu weesu avocat ñëw na doolee ko si kon nga comprendre que ne ñoom te nee nañ xeex bi dañ koy gën a génnee ci àddina bi mais mhm. nga nga dem nga dem nga dem jàpp euh, démb benn télé bitim réew nga gis ñoo non avocat man mandataire Ousmane Sonko bañ nañ duñ ko jox fiche donte euh, cour euh, tribunal ba nee na nañ jox fiche waaye mais nga gis commentaire yi nga gis ni ñu toog doon mais Sénégal moom léegi ban dëkk la tribunal day dogal sax ñoo duñ ko jëfee après ñu ne taxaw non non dafa nañu xaar cour suprême décidé nañ xaar lii ak lii ak lii ak lii je me dis que gis nga ak lépp loo gis mafus ak dal daf ci am solo te ñi ñu ko seqal ni Ousmane Sonko bokk ci élection yi dafa mel ni fi ñu doon àdduna bu tukki la si ñoom te loolu nag ku koy doxee pour man euh, fàttay suñu borom bi la parce que yàlla mooy dogal ku leen ne woon candidature Ousmane Sonko ba léegi dina continuer alimenter débat ñoom duñ ko gëm mhm. ku leen ko waxoon duñ ko gëm ñoom kat ca mbirum Adji Sarr lañ lañ jàppaloon ne lañ jàppaloon Ousmane pare na jeex na ñu ñëwati Mame Mbaye gën leen ko réconforté bu ne affaire Mame Mbaye bu ne dem na fa rek c'est fini politiquement politiquement mhm. Sonko dootul existé ci mhm. mais mu jóge fa di di ñap viol ba nekkatu fa léegi ngeen ne ko corruption de la jeunesse ngeen ne ñab-ñabal corruption de la jeunesse bi contumace ba daanu ngeen ne daanuwul Ismaïla Madior taxaw ne daanuwul ngeen jóge foofu demaat ci euh, juge ba ne leen contumace bu leen ma fi wax kenn moom fi kenn wax waxi contumace contumace ba wadd na depuis ca bañ ko jàppee dugal leen ko dugal leen ko ci liste mu dem DG DG nga ne ko demal daaf génn leen sax léegi waaye léegi génn leen ci biti fii génn ngeen jël takk déer yëpp ñiy kagula yu ñuy def ñii ci loolu lu ko fi jar mm-hmm. jël ñi kagul li ñi def nii si ñoo xamante ne tey jii man pour man bu ma doon ñoom gis nga euh, xam nga Abdoulaye Wade bu daan éliminer adversaire daana si def sax form mm-hmm. mais ñi fi nekk bu ñu éliminer duñ ci def forme daan la jox ma li ma la delloo jox ma daan day day ñëw ne delloo ma ma la joxoon démissionnel démissionnel ah. nga bañ mu yóbbul ay kii waki mais ñi bu ñu la mi mi ture ni ñu koy génnewee assemblée nationale ak koo metti ak koo metti bàyyi li ngay wax te na ko de. Mimi hmm? Mimi loolu bu ñu xam naa ne bu fekkonte ne am na lu ko gën a métti ci àddunaam moom. Euh, loolu ci la bokk. mais moom image ko génne man laaj naa ko ñaari yoon mu wax wax wax nga xool ni mu koy waxee mais da xam ni niñ ko def assemblée nationale métti na ko trop. mais Mahfouz imagine toi Mimi wër na Sénégal gi yëpp. Hmm. waxtu wu ne minuit 23h génn fi de presse. kay la def. lu ne def na ko maa ngi fàttali maa ngi doon gis vidéo yom fecc yom doon fecc Ziguinchor di daw si biir nit ñi di fecc. Hmm. loolu yëpp def na ko fi pour gàññal leen mu gàññal leen réeroo am na seen diggante dañ la fi teg duñ la fi teg mu mer dem mais yaa xayti bàyyi ko benn député boobu démissionné wul. Mm-hmm. wala euh, dem dem na nekk ji noonu ngeen ne léegi pour insubordination dafa démissionné maanaam bu bu bu groupe bi jaaree nii nee lay jaar kon léegi kañ la administration di supposé démission. maanaam xool naa Mahfouz rek léegi Mahfouz suñu la lii doo ko def léegi nga def bi génnal génnee nañ la hmm. boo demee tribunal du travail da am dëgg mais malheureusement euh, réew mi noonu lay doxee te moom ba ko ñoom Moustapha Cissé Lo dundee ak ñoom Mbaye Niang ba mu ñëwee salaire ñu leen doon sax daf ko rattrapé sax jox leen ko parce que daf ne ñii dañoo subir injustice dajale nañ ko muy daf leen rappel ñu jox daf leen rappel fay leen ko léegi loolu tey ji mu teg Aminata mii soxna Aminata hmm. boobu noonu tey ji pour man ku fekkente ne justice moo la ñor ba mu ñëwee tey jii ñëpp waroon nañu mandat Aminata Touré mu ne bu ko kenn laal bu ko kenn laal parce que ñu man dundoon naa ko xam naa mbir mi nu mu demee. Mhm. waaye defu ko cest à defante daf leen di yóbbu foo xamante ni ñoom nag sama yoon nekkatu ci droit sama yoon nekkatu ci droit sama yoon nekkatu ci loi foofu nag lañ tollu jamono ji mbiri Ousmane Sonko amatuñ ci sago. Mhm. te gis nga mbir boo ci amul sago sago koy bëgg te amoo sago da ngay daf lay dugal lu baax pexe boo koy xoolee ki nga xam ne dafay sàcc rek romb benn bâtiment rek tëb rek dugg di sàcc mm-hmm. di parax paraxi an àndul ak sagom mais ki nga xam ne dafa romb kër gi xool bunt bi wiir yi sa gannaaw ëllëg si mu ñëwaat xoolaat wiir def nii si ginnaaw ak suba ñu dugg nuyoo. may leen ma ndox may leen ma ndox ma naan delluwaat dem inspecteur ah. kooku bu sàccee am na 90 pour cent ko jàpp. Mhm. parce que xam nga kër ga waxtu ba ñuy ñëw. Mhm. xam na ne bi bon bi kese fii nekk te bon bi day menace. xam na su ma tëbee heure bi bon bi ci waañ ba koy fekk mi ngi togg. kon mhm. mën naa tëb mu dugg ci néeg bi dem jël jël ordinateur repas bi génn wiiriwaat dem bon bi du gis kooku calculer na ko bokkul ak nga xam te dafa ñëw parax parax def nii rek parax dugg rek fekk fekk ci biir néeg bi mu toog mhm. moo tax sago dafa am solo ci lépp te malheureusement ñii fi nekk ni amuñu sago ci mbir mi et c'est dommage que suñu image yu dëkk bi rek nag moo ci écorné parce que pour man yaa xeeti conseil constitutionnel mooy décider Mahfouz DGE ndax dina affiché liste ne ñi ñooy bokk wala du ñu bokk. Mhm. kon lan moo waral ñu bëgg ko jox loo xam ne moomu ko. day joxe te la mu joxe sax kenn du ko joxaat. la muy jox kenn du ko joxaat <laughs> waaw waaye comprendre que <laughs> xam nga loolu nit ñi. bàyyi kenn du indiwaat ne la DGE la muy jox da lay jox ne demal. demal doo ko indiwaatal. bu doon sax moom mooy jëlaat soit boo déposé nga ñàkk a déposé ci yam doo ko indiwaatal. waaw gis nga loolu. daf lay jox ne la demal est-ce ko métti waaw <laughs> loolu ñu nangu ci moom parce que mënoon mënoon na contrôler tamit <laughs> parrainage yi après nga jox la benn papier après nga dem yóbbu ko fële mais da dem daf lay jox jox ko mu dem lay coûter oui jox nañ fi ñoo xamante ne tey leer nañ duñ gisaat seen clé USB duñ gis seen i kii déedéet leer nañ duñ leen tegaat bët fenn duñ koy indiwaat deux cent et quelque nga joxe trente et quelque ñoo yi kay ñeneen ñeneen CDC instant bii nii nii euh, lañ ko totalisé mi ngi toll ci un milliard Euh, et poussière ah un milliard ak trois cent wala quatre cent millions. xam nga caution bi en 2007 Wade ñaar la ko yóbbuwoon. 65 hmm. millions 65 millions. 65 millions la Wade yóbbuwoon caution bi en 2005. ñoo xam nga ñaata candidat 15 hmm. candidats. bi année boobu année boobu xam ne après nag Macky Sall bi ñu dafa xam ne année boobu 2000 2000 2000 2019 2014 lañu am. 2000 2012 14 lañu am. waaw 2019 ñu am hmm. boobu histoire Sénégal boobu moo fi ëpp ay candidats c'est 15 après ci lañ ne non lii suñ ko suñu ko suñu utul benn filtre pour te eh, filtré du baax mën nañ fi retrouver avec cinquante candidats te mm-hmm. doo ci mën dara nit ñi xëy di woote ba suba ba ngoon du ñu pare duñu pare mu indi parrainage ñu indi pare ñu indi parrainage amoon na ci candidat indépendant yi ah, amoon na ci waaw amoon na amoon na mais kan indépendant yi bari duñu woon bari quoi ay deux lay nekk wala waaw ñaar lay nekk ñett mhm. te ñoo ci ñoo ciy jàlloo mhm. te du ñi ciy jàll sax du bari bu mhm. ñu demee fa la ñu téye leen ci parrainage bi affaire parce que boobu parrainage yi oo yomboon na yombul yomboon na yombul mais en tout cas xamoon nañ demoon nañ ba xam ni caution moom du filtre Mm-hmm. yokk ko mën ko def cent millions gars yi dañuy indi cent millions teg cent millions gars yi teg mm-hmm. donc fallait ñu indi beneen filtre boo xam ne si ni muy le parrainage mais mais mais par problème euh, parrainage bi bon c'est mal nécessaire comme ni ko mm-hmm. gars di waxee c'est mal nécessaire euh, mais daal euh, caution bi tamit am na lu si laxasu parce que ñiy déposé bu ñu rejeté seen candidature quinze jours après déclaration proclamation résultat dañu delloo seen xaalis donc loolu moo a ñu bëri man mën naa laa àbb sa 30 millions dem yóbbu ko. Mhm. dem yóbbu 30 30 mille pare. nee na damay xumbal pare damay xumbal la 30 jox ma 30 après ma taxaw buntu CDC. ni mi ngi nii jox nañ ma sama sama sama sama sama quittance. Mhm. ma téye après ma ma taw du ma yóbbu sax 44 mille parrain parce que damay xalaat su ma ko yóbbu peut-être mën naa am parrain yu baax waaye damay fexe nu ma yóbbu 30 mille parrain rek su ma demee ñoom say parrainage baaxul delloo ma ma baax na saa yeeg dans 15 jours ma delloo sa chèque nga de <laughs> delloo la sa sama xaalis <laughs> boo leen ko yéexee fay sax amaana ñoom ay jafe-jafe ah, donc bëri na ñoo xamante ne mm. comédie comédie comédie li ñuy def mais lan moo waral am ñoo am si ni tamit euh, communication la ñuy def c'est ça marketing la def c'est ça pour après ñu mën a dem fenn voilà ñu mën a dem négocier après bu ko ne parrainage moo ma téye déposé naa sama caution def naa lii def naa lii parrainage moo ma téye donc damay ñëw jàppale la léegi mais lan moo waral tey ji CDC boobu nga xamante ne ab boyat la rek bu ñuy teg ngay dugal xaalis ne du ma ne du du ma jël ayib dafe sa chèque cest à dafa dem ba ñoom ni ni ñu ragalee waa ni ñu ragalee Ousmane Sonko moo ëpp xaw ndax yaa ngi bàyyi xel maanaam mbër mi du bëre ba damay fatt buntu këram fatt koñ bi fépp foo xam ne dafay jaar mais du bëri ci arène ba kay tëjal arène bi rek ko doo sax du ñu bëri poulain yi sax du ñu bëri léegi foofu la ñu yem poulain yi du bëri poulain yi du ñu bëri et puis du jege sax koñu stade bi ba ñuy day na de su boobaa day nduru injustice mm. libre circulation foo koy teg day na de ku nekk am nga droit libre euh, circuler benn euh, constitutionnaliste professeur. Mhm. Euh, Ngouda Mboup mu ne Ousmane Sonko mën a déposer sa candidature euh, sans ses fiches de parrainage. Mhm. à la a la au conseil constitutionnel loolu mën a nekk. waaw loolu loolu loolu la ki kii conseil tamit Ndiaga Sylla nee nag su ma doon moom damay dem mooy wuti ji boo xam ne du am numéro damay dindi numéro fiche bi du am numéro. Mm. après dëgg xam nga loolu pour lan lañ si jublu. Mm. mais nga teg lépp nga teg ko si loxoy conseil constitutionnel. bu nee la yow si fiche yi baaxul nga leen ah, ah dem naa ah, fële kat loolu moo tax nag ñu bañ a jël huissier bi ñu ne joxuñ joxuñ loolu moo tax ñu a jël huissier bi ñu ne ah lan moo li ngeen wax lan moo li ngeen wax lan moo koy dëggal ñu ne ah bi ma fausse loolu moo tax nag du dugg ay doo dugg sa huissier parce que boo duggee joxuñ li huissier bi danaan joxoo ko mu dawaa mu constaté mhm. léegi bu demee conseil ko indi leen fiche boo xam ne amul numéro mhm. ñu ne Ousmane Ani Kandaaw mandataire bi rejeté nañ ko si bii amul numéro huissier bi ñëw taxaw ci wetam ne ko kii baa ngi ni maa ko constaté mhm. amul numéro parce que dafa dem foofu ñu lànk ne duñ ko jox parce que décision de justice nañ dañuy xaar nangam ak nangam loolu chargé mën nañ ko nangu mm. mais yooyu pour ñu fàtt ko nag ñu ne ko duñ gis sa huissier doo dugg duñ la jox mais moom teewul na def lépp lu mu war a def rek jël yóbbu lépp lu mu war a def na ko jël yóbbu comme mm. fële yàlla nattu na leen ba nga xamante ne am na fa ba ab ab quittance na jël quittance bi photocopier ko légalise ko dem yóbbul leen ko mm. boole ko pour ne leen dama bëggoon tamit ànd ak ak demee laaj attestation wala ñu ñu lànk ko koo jox bu buñ ko ko joxulee huissier bi constaté ñu def ko ci mu yóbbu buñ nekk lu tax nit ñi di indi kayit bi yow nga indi bi ma ne huissier baa ngi ni constaté na ko mhm. damaa dem tamit ñu lànkal ma fii daal dajale yóbbuwaat xam nga ñoom ñooy juge ñoom ñooy arbitre bi mhm. mais pourquoi match bi am arbitre nga bàyyi fa arbitre yi waxuma sax arbitre de touche de mais di dem si ñoo xamante ne rek dañuy dañuy nu ko mën a ay ay ca vaar ba la ñuy toog mhm. toog ca vaar ba rek nga dem fekk leen foofu nankan kay kay kay rougeur bi mu génn yaa rouge góon rougeur fu mu amee sens conseil constitutionnel ñoom ñooy arbitre bi mhm. ñoom ñoo yor carton rouge du rouge liñu yor jaune bu ñu la dooree jaune ne dama defal ci sa parrainage bu baaxul ci biti nga jëm nga dem defari parrainage bu baaxee nga ñëw duggaat Pape Djibril Fall loolu dal na ko fi mhm. ci élection yi ñu mat matlewul woon euh, boobu c'était législative c'était pas avec euh, euh, mais loolu daloon na ko ci parrainage yi mhm. mais yow nga toog ci wet gi bëgg jël carton rouge di rougeaate ci biti te amoo sañ-sañ bi c'est un précédent dangereux parce que day wane ëllëg fii tamit képp ku fi mën a toog tamit ñoom xamuñu ne ñoom ñu nekk di def li ëllëg mën nañ leen ko appliquer ah bu ñu dajee ko xam ne day defante fii day day day defante fii képp ku bokk APR fii di nga am jafe-jafe pour bokk fee élection maa la ko wax bu ñu fi dajee njit bi defante te su boobaa bu ko def sénégalais dañuy toog di leen seetaan te loolu moo ñu yóbbu fa fi ñu nekk jamono ñuy tey <coughs> bu dee defante sax dañoo tas APR dañoo hmm? euh, dañoo <laughs> tas APR waaw parce que parce que loi yaa ngi nii. respecté yaa ngi fi respecté wu ñu ko kan ma fi déposé bilan financier. boo ko déposé wu rek motif la pour ñu tas parti. def yow ba nga defee deux mille deux mille deux mille deux mille huit ba léegi de mosoo def sa état état. financier mosoo mosoo ko def donc motif la pour ñu tas euh, parti bi. bu ko jaaree foofu it mënoo si dara mais loolu la ñuy ñaan yàlla defante boobu la ñuy moytandiku déedéet yàlla xam nga yàlla buñ ci dem ne ñi nga xamante ne mu toll mm-hmm. mu ngi mel ni comme comme comme comme en deux mille euh, deux ñu dund mm-hmm. xam nga deux dañoo diaboliser woon Ablaye Wade mm-hmm. Abdoulaye nitu fitna la. fitna la fitna bu jëlee réew mi man maa ngi koy fàttaliku. Mhm. bu jëlee réew mi li muy njëkk mooy guerre ak la ñu naan boobu attanul karaw boobu attanul karaw mu a jot. fa lañ mujjee góor gi doyaluñu doyaluñu. yéex te na kon fondation bu yàgg ba gars yi ñëw teg ci affaire yi tabax nañu réew mi kon. mais dafa dafa dafa am lu des ba tey. xam nga waat dafa ñëw. Mm. ba tey volet volet bi am fi doole. Mm-hmm. mu am yu bëri yu dees am na lu mu continuer mm-hmm. Macky Sall la ñëw judd après indépendance ñu ne noo kooku dina dina gën sax la ñuy wax. dagg buumu jaam gi. dagg buumu jaam gi dina gën sénégalais yi jël lu moom sentir seen bopp ci réew. Mm-hmm. am yu bari ñu euh, ñu jóge ci jamono yoo xamante ni ministre wala DG day toog noo mën a comprendre li xew bërki démb Thiès. Massaly 20 millions mu koy financé ni teg ko ni ci benn bay toog toog di compter di teg. wallaay mais mais man man vidéo ko gis ma ne waaw. après mais mais, mais c'est choquant. gra garaawul ah. non non garaawul kenn woowu ko kenn deful dara. non non vingt millions. vingt millions nga yor ko yow nga loolu moo ko c'est à yoon tere na ko c'est agressif quoi. yoon daf ko tere sax. non mais. ñu koy filmer publiquement di ko di ko di ko di ko génne. mais léegi loolu bu ñu ko songoon ñooñu ñooñu bu ñu ko songoon noonu daal daal di commencer xëccoo kii yooyu xaas léegi lu muy jur après. du mujj fenn. mais mais wala ay nit jóge fële rek ñëw rek. génn seen i arme taxaw waaw yow yow takk million boobu ngay génne am na koo xam ne dund na ba am 50 ans musul xam sa takk million mel musul xam nu takk million mel yow nga tey ko di compter ne da ngay financer famille mais defal sa benn chèque mhm. xam nga arrogance boobu noonu mhm. bokk na si fi jële woon Abdoulaye Wade parce que ñi dañuy wax naan on ne plus d'un gouvernement arrogant mhm. ay nit ñu arrogant yor ay oto yu ngande tiim nit ñi yor ay kër yu mais arrogance bi. Mm. di ko wane di ko doxee di ko jëfee loolu moo leen fi jëlee woon. Mm. moo tax may leen moo tax bañ bañ ma envoyé vidéo dama leen gis ngeen. nguur gi daanu façon bu ne nga koy gisee. Moustapha ak ak euh, liquidité bi nekk ci ci ci ci ci ñoom tamit. Euh, les hommes politiques surtout ñu nekk ci régime bi. li ñuy yor ay milliards la ñuy yor ci seen kër yi ay millions la ñuy denc ci seen kër yi te loolu euh, yoon daf koy daf koy tere Moustapha. ah Mahfouz gisoo fi woon fii koo xamante ne dañ ne chauffeur bi ñaata la ko sàccoon. ñaata ñaat ce que du. bari na de millions yi bari na de 800 millions lañ ci presque milliard jege woon nañu sori woon na. waaw noonu dañu ne 300 et quelques millions lañ la jël en tout yi bëri nañu. centaine de a jum centaine de millions. après dara xew na. dégg nga procureur jóg si procureur dégg nga procureur jóg si laaj xaalis ba fu mu jógee ak nu mu demee. ba tey déggoo ci dara. dégg procureur autosaisir si. kenn mësu koo gis. kenn mësu koo gis. ak xaalis bon bi sur 8 milliards depuis avril à décembre 8 milliards nañ en faux waaw mais parce que xam nga tax dañ fi jàpp ab kilifa mi defar faux billet après mujjul fen léegi ñii dañuy jàpp ne faux billet moom bu ñu la ci jàppee boo amee lijjanti war nga mën a génn ñibbi ah, ah. parce que dañ naan faux billet garaaw bugaase léegi nii bi mu ci daanoo après gars yi donc nit ki bu defee dara daanu ci mhm. ku la ne nekkul ci biti sax di alimenté mbaa mu nekkaat ci leneen ah, parce que dara fekk ko ci mhm. je ne dis moo am mais dara fekk ko ci mhm. gis nga yoon dafa am solo ci réew mais su fekkente ne dañ ko def nii ngara la ko def nii def nii def nii jël xaalis bëri becc teg ci taal bi jox nii def nii def nii li mais am na yoo xamante ne sax boo ko mënee maxfuus dañ ne da nga koy ni am na joxoon nee neen la façon de donner vaut mieux que ce que l'on mm-hmm. am na façon boo joxee nit ki ni nga koy joxee moo gën fu